assayida nafisatu bintu cheikh al islam el haaj ibrahima ñes ñi gën koo xam ci yaa na fi bàyyi mooy woote lam daan woote at bu yàlla sàkk bu gàmmu gi desee ñaari fan guddig zikkar gu mag gum yàgg amal at bu yàlla sàkk ci atum 1968 ci la ko tàmbali woon ren nag jàpp nañ ko samedi 23 octobre 2021 fii ci bayaal bu Medina Baye di hab conférence bu mag bés bi nag mi ngi am ci digalu alxalifa cheikh mouhamadul maahi cheikh ibrahima ñes ak ci teewaayu cheikh mouhamadul amin cheikh Cheikh Ibrahima nias ñi gën ko xam ci baba Lamine conférence ba nak ñang ko parrainé El Hadji Cheikh Omar ibnu El Hadji Abdoulaye nias Al Kabir Cheikh Mouhamadul Makki ibnu Cheikh Ibrahima nias invité d'honneur ya as sayyida um Salamata bint Cheikh Ibrahima nias ak as sayyida Mariama Caatu Baay bint Cheikh Ibrahima nias invité spécial ba moy Mouhamed Ndiaye Rahma danañ ci rendre hommage Cheikh Hadi Wuld Mawlud Fall El Hadji Barham ibnu Serigne Mbaye nias Malam Tijani Awal El Hadji Aliou sidi nias Cheikh Sidati Sow Sidi Lamine نيانغ السيدة مريامة بنت شيخ إبراهيم نيس السيدة بركاتو بنت شيخ إبراهيم نيس شيخ أحمد دام نيانغ شيخ منصور ابن شيخ محمد المأمون شيخ جيبن جاي كاي مور سيرموني دوفرتير 22 لاي تامبالي ني اوبيكو نجانغوم القران قالاي انستيتو الميسر بشي عبد الله ابن بابا لامين نيس نيوكاي تاخاوي نكا نونا تاميت وا داراي القران بو سيدة مريامة بنت شيخ إبراهيم خادمة القران دا نان فا وانا سين بوبو كاكاي موديرا نك مو شيخ عبد الملك شيخ إبراهيم نيس كاكاي بريزانتي شيخ أحمد بوكار Baba Roqi Ñang Zikar Sa Cheikh Taha Abdoulahi Ibrahima Niass Cheikh Abdoul Baqi Hassan Dem Baye Mbaye Nazir Ibrahima Niass Serigne Aliou Nazir Ibrahima Niass Ibrahima Ndaw Mouhamed Ndaw Omar Ñang Baye Mbaye Bitey Jamaiyatu Ansaaru Diin tamit danañ ca participer kon nag bés baa ngi noonu samedi bii di ñëw 23 octobre conférence guddig Zikar bi nga xam ne Sayyida Nafisatu bint Cheikh Ibrahima Niass moo koy amal fii ci Medina Baye ëpp naa wuute